ay wax moom bu jógee ay wax rek a koy fay waaw wax ji koy fay na ci ñun mooy mooy jëf waaye du doon ay wax yu ñàkk fay la ndax ñun moom sëñ Béthio waajal ñu tey wax dëgg yàlla du ñu tontu ay naxa saxandan waaw li ñuy wax lépp dara amu ci dara amu ci xalif général ma woo wuy naa ko wax naa naag man à huis clos teral na ma mbég laa fa jëlee aku cant li ma fa jëlee nag du lu may leeral lu may dox la ñëpp di teg seen bët kon maa ngi leen di woo ci noppi ci régler waaw ci ci jëf jii ñu dënmal muy muy gàmm bi ñu lijjant ci dooley Serigne Béthio ba matale ko waaw te jàll na ci li nga xamante ne nag mooy université bii nga xamante ni mooy bii mu yëkkati te te ko ci Serigne Touba maa ngi leen ci woo te bëgg na message gaañ yi bàyyi leen message yi génne groupe yi bu mu génn groupe bi groupe bi ñëpp ngi fi daanaka ku ko fi dégg dégg ko fi te boo pare nga ba ko fi wax jàngum jaa ngeen jëf. waaye li ci am solo moo di euh, Bello, dëgg la ci lislaam la juddu ci ñooñu Sëriñ Tuubaa yi la boole woon boppam rawatina jox bi mu boppam jox jox bi mu jox gi mu jox boppam sëñ saa kon waxoon naa ko njaboot gi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 waaw rek moo ci moo ci moo ci war ci seen bi lu bon nag seen bi rek lu bon moom seen bi rek ku teggi ndigalal yàlla teggi ndigalal sëñ Tuubaa wàcc fa bëggu su bëggu suñu borom gi wàcc fa bëggu sëriñ bi gi ñun su xamatuñ ci yow dara kon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 yaatal naa wax ja lool ci bëgg a teqali dëgg ak fen kon soxna Ayda waxoon naa ko ni ko fii li mu bëgg seen bopp li mu li mu bëgg suñu bopp rek li mu leen bëgg li mu bañal suñu bopp moom li mu leen di bañal loola toog na wax ko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 ginnaw nun ak ginnaaw jeesi lisaan amatul jeesi lisaan bu jeesi lisaan amatul amatul am na loo xam ne bu xewee dañ leen di rey wala ñu fa wala faagaal lañ ko ak ak bomb waaye loolu yàlla soppi na jamono yàlla soppi na jamonoom loolu loolu loolu nguur gi rek ñoo ñaam boobu sañ-sañ te ñoom bokkuñu ak ñoom ak ak doxin ñoom doxin adduna la ñuy doxal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 te yàquñu dara ci lim lim nekkoon sun borom far ba ci ba fii tey kon moom moomee di sëriñ bi ba mu jóg jëm ci boromam jóg woo ñun ñi bëgg leen gindi jëme nañ seen borom bëgg leen woo ma jëme leen seen seen seen borom ca loolu rek la ma sa nekk waaye ci loxo yi tox tuwaay lan tuwaay loxo tuwaay bi lan lañ nekk la nekkoon kenn yàqulu ci sa morom daa ñee ña nga ci lañ lañ doon def ba léegi moom it mu ngi ci lem nekkoon ba léegi kon eh, daal soppiku fi waaw ah, ah, ñu jàdd yoon wa fétal di dang dangi di wéy loolu su yoonu kenn nekku ci ñoo ñoo ñoo seen bopp ñoo yàlla loolu ñoo seen bopp ñoo yàlla ñoo ñoo yàlla waaye nu alhamdulilahi rabil alamin dara jaaxalunu dara jaaxalunu ndax nun amuñu benn bëgg-bëgg wala benn yitte wala benn xemmam teef wala lenn ju genn jublu guru sëñ Tuubaa nun sëñ Tuubaa dong moom moom moom moom moom moom moom moom rek lañ jublu adduna ak li ci biir amul amul ci soxla sëñ Tuubaa foofu la nekk ah te noonu la fi bàyyi noo am tawféex mu bàyyi nu fi yàlla boole nag moom waaw kon noonu waruñoo xeer waruñoo waruñoo dana war a nekk mel ne kuy weeru fetal di diir ba mu ba muy ba muy wax ak njaboot ga day day day diirloo.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 goudron ngi fi goudron baa ngi bu yàgg ñëpp waaw ku bëgg a dem jaar ci mën ngaa dem mën ngaa ku jaar nag fu la neex féetal bi def la neex loolu yoonu kenn nekku ci yaag yàlla yaag sa bopp ak yàlla ak bis bañ ci ba ak sa ak ak ak bàmmeel ba ba ba ngay ba bis bañ ci ba dara dara dara réew ci lépp lépp mi ngi ci kanam din di nekk lépp ni ñuy gisee nii li ñuy gisee nii yëf yi noonee loola gën a leer foofu la gën a fese kon bu yàgg ba ma di laabiré la ma daa wax rek nan góorgóorlu ci njub ndax njub mooy buntub lépp lu baax njub mooy buntub lépp lu baax boo jubee xam sa diine yomb la jëfe sa yomb la boo jubul dara lu baax doo doo yomb waxuma laa waxuma laa sa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 te yàqu gënal la ah loolu rek la yàqu moom ku ko def yàqu yàqu daa daa neex daa daa neex waaye dëgg gaa ngi fi hmm? ah ah ku yà ku mu neex nag yàqu waaye yàgg yàlla yàgg sa bisu sukuraat yàgg sa bisu bàmmeel yàgg ñooy dem di barsàq ba ba ba bés ba nji ba ah,